doon man la mm-hmm. duma ca dem <laughs> duma ca dem parce que euh, dafa am loo xam ni mm-hmm. dem di ko fekki mm-hmm. naar dafa saay-saay am na naar yoo xam ne dañu saay-saay parce que du ñu jëlee fii sénégalais yóbbu ko foofu ci noonu suñu ne rafet na rek wala jongo mën a rek ñu jéem ci dara am na loo xam ne jaru ko dangay toog liggéey doyloo yàlla yàlla ànd ak yow nga am li nga bëgg mais kanta nga dem nag topp ay naar walla nga topp ay sénégalais wala nga topp ay malien ba jëlee fa am ba ñëw léegi doon uuti li nga doon uuti jaru ko mm-hmm. li nga doon uuti itam Euh, ak li nga am du benn. kon nag li gën rek mooy moytu. kenn ku nekk na moytu. gis nga nit. dafa am dignité. nit dafa am dignité. dignité boobule. waxtu woo ko dindee ci sa bopp. deseetoo dara. waxtu woo dindee dignité bi sa bopp. deseetoo dara. donc kon dignité boobu nga xam ne nit ki am na ko personnalité bi nga xam ne nit ki am na ko mais bu mu ko indigné bu ko dindi mukk ci àdduna parce que xaalis jaru ko hmm. xaalis jaru ko te gis nga euh, da nga dem topp nit mu jël alal jox la lam bëgg mu am ko ci yow hmm. nga defe ne fa yem yàlla indi ëmb su yàlla indi ëmb nag hmm. aha jeex na léegi ki ki nga xam ne dafa defe miis yàlla dogal mu ëmb ca léegi ba ci ëmb ba amee léegi ana miis ba anamu du ca du ca amul amul njëriñ amul njëriñ nit dafa war a seet li mu war a dugg ak lum warul dugg loo war a dugg nga dugg ca loo warta dugg nga bàyyi ko loolu mooy nit waaye rek euh, dañuy def miis Sénégal Miss Mauritanie Miss Mali Miss Nangam nga ne dinaa dem bokk mais kaay pour nga doon miis ah di doon caaxaan de mm-hmm. pour nga doon miis mm-hmm. da ngay nangu dara xanaa xamoo bari ne kuñ ne kii miis la mm-hmm. am na ñu ko dàq dëgg la ña ko dàq dañoo lànk lam bëgg dañ ko lànk bari ne kuñ naan miis la wallahi ñu ñu bàyyee ko dàq dëgg la waaye moom dafa nangu ak ak mbon mm-hmm. nangu ak caay-caay mm-hmm. nangu ak lu kenn xamul mm-hmm. ñu jox ko ko ñee ko lànk ñu xañ leen ko senegal ak benn réew a ci yam lépp loo fi uut dangay nangoo joxe sa bopp ñu nangu la ko jox nga lànk ne doo joxe sa bopp ñu xañ la ko jox ko ku ko nangu loolu moom si fu ne la ci njàngum école meeg ci lépp daal. waaw léegi nag soo ko bañee. doo dem dañ lay xañ. mais ñu xañ la nga dem ak sa dignité. dem ak sa personalité moo gën. moo gën fuuf. te am na loo xam ne bu fekkee ne dangaa nangu ñu may la ko. ñu jox la ko. waaye nañ la ko joxee baaxul bés boo xëyee ci liggéey boobu bés boo ci xëyee rek yaa ngi fàttale ko ko amee sa fàttale ko ni nga ko amee mu ngi teew nit day am amin bu rafet am amin bu am dignité am amin bu am personnalité dina tax amin booba ku ñëw eh yamal fee e taxawal fee e jaaral ne e taxawal ba ma pare looloo looloo koy may mm-hmm. li tax nag du la ko may mooy dangay ragal ne xam na ko ba doo wóolu dal ci kawam mais bu dee amin bu sell jeex na jeex na amul leneen dangay dangay da ngay tranquille donc nañu dal rek euh, euh, gis nga nit dinaa la wax leen bëgg Bàmba mhm. nit li mu war a am ëllëg mhm. ak kañ lay dee mhm. xamu ko dëgg la nit lan la war a am ëllëg ak nit kañ lay dee xamu ko dangay dox rek ba suuf sàngam ba yegg suuf sàngam rek nga da ngay xëy am am bam yàgg nga ñàkk doxalinu yàlla la. kon donc yow awal ca yoon wa nga war a aw. doxal li nga war a dox. di bàyyi yàlla li ci des. waaw oustaz est-ce que lii di miis tamit l'islam bàyyi woon na xel ci araam geeg dagan gi est-ce que l'islam indi na ko. mais miis euh, xam nga miis. ay ay ay caaxaan la rek. parce que jigéen. génn solo. wane wu ba ñu ne ko yaa fi gën a rafet. loolu amul fenn loolu bakken rek ko indi tubaab bee ko indi ñu daal di adopté wu ci tubaab bi mais li sariya indi mooy jigéen daal na mel na mu war a mel de euh, toog ci këram ba nga xam ne ku ñëw fekk ko fa waaye jigéen juy taxawaalu jigéen juy def miis jigéen juy def nangam loolu affaire tubaab bi la mais du diini du diini tubaab la tubaab nag lépp lu mu def mm-hmm. soo ko seetee mm-hmm. ña cay bokk ñaare duñ doon ay tubaab <laughs> boo ko seetee mm-hmm. ña cay bokk ñaare duñ doon ay tubaab ay nit parce que xam ne nit ku ñuul da ngay dafa da ngay waaru bëgg xaalis bëgg na yaa yaa siiw bëgg na daraja bëgg na yëkkateku yooyu yëpp bëgg na ko mais ñoom ñun de gis nga ñun tubaab bu solee solam du ñaaw ci yow parce que parce que colom la mais nit ku ñuul bu solee solu tubaab du rafet ci yow wallaay dëgg la kon ku ne na yem ci aw wàllam rek ne nit ku ñuul yem ci wàllam nit ku weex yem ci wàllam su ko defee nag jàmm waaye nga nga nga nga eh, nu mu tudd nga jël cër boo xam ne du sa cër daf lay gaañ daf lay gaañ ba tey danañ la mën a plaider kooku dara nekku ci danañ la plaider parce que buñ la plaider wul nga dee ci kaso bi dëgg la waaw da ngay sonni mais bëri na bëri na ku ut avocat ci la mu nekk mais baaxul baaxul mais nag bëgg na cee génn waaye bañoon koo def nekkoon ci mbaax moo gën loolu soo demee nag ba dugg ci la ngay def da ngay wut avocat. mu laayil la ñu bàyyi la nga génn waaye boo génnee nag ñu seetaan la ba xam nooy def ah. maire la deuxième chose. Ah, ndax da ngay bàyyi li nga doon def wala boog da ngay def li nga doon def da ngay bàyyi li nga doon def wala da ngay continuer li nga doon def danañ la plaider danañ la bàyyi léegi nag dañ la seetaan suñ la seetaanee nga bàyyi la nga doon def. wuut yoonu mbaax ba tey kenn baaxagul la ba tey kenn baaxagul ñu ngi ci ihdina siraatal mustaqima rek ci ngay sax ba dee du tax nga am ko ihdina siraatal mustaqima rek ihdina siraatal mustaqima rek ba nga xëy dee waabud rabbaka xataa yaatiyaka al yaqin soo dee nag su la yàlla na yoon wi nga awoon baax na alhamdulillah su ne la yoon wa nga awoon baaxul nga yaakaar ko alhamdulillah loolu rek mooy àdduna su ko defee euh, tënku ci mbaaxu yàlla tënku ci ndigalu yàlla moo gën la ci des nit ñi dañoo xamatul fu ñu jëm dañoo tërërëri maa la ko wax de nit ñi xamuñu fu ñu jëm de dañoo màmm nit nag bu demee ba xamatul fu mu jëm di tërërëri da koy seetaan mais da koy seetaan ah. am na loo xam ne eh, bu bu ko nit ki xamul xamu ko mais bu ko xamee xam na ko mais yow yaa gën a xam ne ndaw si li muy dugg baaxul ñu koy organiser li ñuy organiser baaxul li ñuy def dara baaxu ci ba pare ci ñu ngi koy def dañuy nëbb nit ñi la ca biir di génne li ci biti mais ku xamoon la ca biir doo ci dugg doo ci dugg mukk mais dañ la koy nëbb ba nga dugg ba ca biir ñu ko koo génne affaire la yoo xam ne il faut rek il faut rek ñu nekk nit ñu nitee di bëgg lu baax di bàyyi lu bon loolu moo ñuy arrangé. Mm. mais daal gannaaw amuma euh, dama sonn mm. dama jaaxle dama amul fu ma jëm. Mm. et loolu. Mm-hmm. mais ñëpp a yem. Mm-hmm. xanaa xamuloo ne. Mm-hmm. bari na nit ñoo xam ne. bari na koo xam ne. yaa ko tani fuuf. ci am amu àdduna. moo la gën fuuf ci ngor. dëgg la. gën fuuf ci ngor. mais alal du dara. xoolal nga am ñaar fukki junni walla fan wiiri junni wala ñeen fukki junni yoo xam ne na ko amee baaxul ba ba muy jeex waxtu woo génne jox bon bi mu jëndi ba ba muy jeex action. dëgg ba muy jeex action. ni ko amee rek kay dikk. ni ko amee rek mooy dikk. mais su amin ba rafetee. eh laa ilaha illallah boo koy joxe sax dangay ngay yëg ne li may joxe benn affaire la su amin ba ñaawee da ngay naqadi deret dangay ngay mën a kaas da ngay xul pour pour rek nit ñi bañ a yegg sa kaw yooyu yëpp day am c'est ça. amuñu responsabilité benn ñoo yem rek. dañ maa violé ak ki organisé moo gën a xam li ci biir. bàyyi leen waxi caaxaan ñoom jigéen ñi ñoo gën a xam li ci biir góor ñi xam li ci biir ak góor ak jigéen bu ñuy daje te góor li mu yor jigéen xam na ko jigéen li mu yor góor xam na ko kenn ku ne xam nga li sa morom yor ti ti ko bëgg ba doo ànd ak sa sago ngeen àndandoo wéet ne da ngeen def miis mais kan nangu nga nga tëddee ko. Mhm. dana nangu nga def ko def ko miis. Mhm. mais ka bañ nga tëddee ko du ko nangu. Mhm. bu fekkee ne dañ koo doroge su toogoon seen kër kenn du ko doroge su yemoon fa ko yàlla yemloo kenn du ko doroge waqar na fii buyuutikunna wala tabaraj na tabarajal jaahiliyatil uulee wala tabaraj na tabarajil jaahiliyatil uulaa su ñu yemoon fa ñu war a yem danañ ko fekk doroge hmm. mais ah, ah, ci suite hôtel sax ah. mais kenn du la doroge mais yow nga dem topp ay neex-neex topp ay laala topp ay liili ba ñu waay yow yaa ko tey nga naan lan léegi yaa macha allah léegi kon xale bi nga xam ni nag euh, dana ci sosoo wala xale bi nga xam ne sosoo nañ ci waxuñu ci cadre ndaw si waaye duñ ma ne général xale boo xam ni dafa juddoo ci viol moom ndax atte tamit ku juddoo ci njaaloo la mooy atte gi wala. ah benn la benn la rek. benn la rek kii dañ koo violé kii dañ koo njaalo benn la rek du doonu dara dërëm du ko doonu dërëm waaye duñ ko def dara dara duñ ko ko def mm-hmm. ndax moom ba ba ñuy eh, naan seen yëf. juddoogul. Mhm. ba ñuy def seen yëf juddoogul. Mhm. ah bañ defee ba pare ca la juddu ah yoonam nekku ci. Mhm. mais nag du doon dara. du doon ku góor ki. dërëm du ko doon ci moom. ku góor kii du ko doon. ma wax la leen nag doomu njaalo. du doon duñ ko doon. kenn du ko doon. doomu njaalo baay bi du ko doon moom it du doon baay bi. ñoo yem. ñoo yem kenn du doon sa morom mais nag doomu njaal dana doon ndeyam dana doon ndeyam waaw mais baayam du ko doon waaw dana doon ni jëkkëram bu dee jigéen la am na jëkkër doon jëkkëram mais paa bii ak sikkimam bii moom liir bii sequñ dara dafa say say jigéen ñi duma dellu gannaaw du ma dañ ci li ma wax ku yemoon sa kër kenn du la violé ku yemoon sa kër kenn du la santas mais lu ñuy wut yow yaa ngi dem kër bàyyi sa kër bàyyi sa ndey bàyyi say mbokk dem fa bañ santas la ah mais yow buñ la violé yaa tooñ sa bopp yow yaa tooñ sa dangaa war a toog seen kër wala nga toog sa liggéey boo doon fayeeku dërëm moo gën nga fayeeku ñaar dërëm bi ci des ñi ñu ñëw ci ñi nga xam ne dañu am alal seen alal lii mu leen xiir mooy lu bon xam nga yàlla wax na ne wa qalilun min ibadiya shakur ñi néew lu néew ci samay jaam ñoo sant mais moo ko bëggee noon am na koo xam ne bu amoon ay milliards yàlla soxlawu ko dëgg la yàlla soxlawu ci dara dara dara su amoon ay milliards yàlla soxlawu ko moo tax fam ko soxlaa fa la koy def kii fam ko soxlaa fa la koy def waaye bu fekkonte ne yàlla soxla na ko ba ko def fu bon. Mm-hmm. ba ko yàlla soxlawul nag nga organiser ñu am ay organ organisme yoo xam ne dañ koy doxal lañ cay def seen alal la cay dem. Mm-hmm. alal ja nañ ko amee baaxul. ñu def seen alal. li gën daal mooy jigéen. Mm-hmm. na toog seen kër. na toog seen kër. na toog seen kër. xam nga yàlla bu la mayee teraanga. congaan. te teraanga ji mu may jëmewu la ko fu jëm jëmewu ko ci boppam mm-hmm. da ko jëmee ci seytaane mm-hmm. bul fàtte ne seytaane ngi fi bul fàtte ne seytaane ngi fi ti dafa am wàll ki alalam jëm foofu mais loo ko mënal kooku digganteem ak boroomam rek nga koy àtte mm-hmm. ndax moom koy bàyyam mm-hmm. ndaw si nga xam ne itam moom lay jox alal ji mm-hmm. waay waay bu yemoon seen kër lii du ko fekk mm-hmm. waaye day jaay muus di jël ay téléphone ay enregistré fii ay dugg fee ay naa ci am million jaru ko parce que ki nga xam ne yéen lañu ñu jàpp nga wane sa téléphone. loo ca def. lu mu def. nga wane ko. mais yaa ngi weeraal sa bopp. jigéen jooju jarul xam. góor gi ànd ak jigéen jooju jaru ñoo xam. manoo leen a wax a wax ba ñu bàyyi li ñu nekk. tara nga ci manu parce que tànn nañ ko ba pare. tànn nañ ko ba pare. waaye ki juum. boo ko ne bàyyi rek mu bàyyi. boole tuur ay ronkoñam jéggulu boromam. kii dafa juum. waaye au foyer waayu bàyyi bu ñu rey waay koy wax ni mais gaayen bi day soob rek ah. parce que yii dafa xew quoi. mais nañ dox ba ci kanam. doxal ba nga gudd fan. danga nga soo làmbatee dañ laa soo làmbatee dañ laa dajal. soo manee dañ laa manal. soo talee dañ laa talal. dootoo man dara. su boobaa nag yàlla ne la nag nakamu. nakamu. taloon nga manoon nga yaa ngi doon def léegi wees na naka mu ne su boobaa nga xool lan mooy doon naka mu mais yàlla kenn du ko fonto boo ca tolloo defar rek loo juum jéggalu rek loo juum baalu rek loolu mooy wareef waaye kantaa maa ci toll maa yor sama xaalis ku ñëw boo bëggee ma defanteeg yow lii sama xaalis nii lay demee bis dina ñëw dootoo am dara dara doo ko am dara naada doo ko am loo wax nga man du ma ànd ak kenn man ànduma kenn parce que man euh, miis moom d'accord ma ci lu diine d'accord mais ànduma kenn man sama yoon wi ma aw yoonu yàlla la yoonu métti la wu métti ci ko ku ku ñemewul moo tax ànduma ak kenn waaye yoon wu neex la ci man ak a neex bañuma kumpa du ma déglu dara dara dara dara dara du gis dara dara dara dara du dégg dara dara dara mel ni ña xam <laughs> ñu ngi seen téléphone yi. di seet rek. maara day taali. léeg-léeg nga gis lu la naqari. léeg-léeg nga dégg lu la naqari. waaye nag li muy xeex moom. dëgg la. te ku ànd moom ak ku àndul ak moom dëgg la. te ku bëgg dëgg dana ànd moom. ci ne lii waruñu ko lii warul mais na noppal boppam xam nga lu tax réew mi soo amul yenn moyens yi amuloo yenn kiiraay jarul nga fiy jéem dara jarul nga fiy jéem dara parce que amoo moyen amoo kiiraay du tee nga jéem nga jéem na jéem na jéem na jéem waaye pour mu am ci ndam dana jafe lool de dana jafe torop ci mii réew réew mi dañoo màmm déggoo li ma la wax dañoo màmm tërërër la ñu def fi mu ne kenn ko ci ne xamatoo looy wax xamatoo looy def xamatoo foo jëm xamatoo ci loo ne yaa ngi rek di tërërëri mais bu ñëpp normaloon ñëpp réglé ñëpp dal mais ñu man leen wan yoon ñu aw ci yoonu jàll mais daluñu voilà